bonjour c'est qui ça. déglu leen jàmm la. sama gars yi xaar li mu ñëw de retour sama secret laa leen woon tey quoi. buubi moo ñu saaf teg ci bëri feeñante. buubi moo ñu saaf di la jox ca warte meew la yalla ak a mën produire capacité yëpp lay produire. <laughs> gay balen ba leen yàq baal naa leen baal leen yàlla nañu yàlla ñu jéggal té nangul ñu suñuy koor. waaw man ñun li ñu mëna wax Ndoye jaay di len wax aussi xam len na moon ngeen ma mais ma len raw. yow mom da nga jék jék rek raar. xam nga ne moskat man dina ra ndax té koor dafa laaj science. dëgg du romb nop ay bu nekkone ku sëj do wor sama classe bu ragal koor gi un an yi dinañ ci soj neuf mois deux jours. Hmm? fii la ñuy toog a woor. boo ko amul nag. boo ko amul woor rek. mais ki am alal mën ko am wér gu yaram ba pare am kattan gu mu war a wooree ñu la ko wooral mu taxaw lank ne am na lu mu mën a fayee di woor. yow da ngaa dañ laa jàngalee. yaa ngi lu wëlbati ay yëf amul noo ko mën a bu doo doon li ma la <laughs> damay laaj rek ba xam ci atte ñi feebar lañ koy boole wala. ñi feebar am nañ seen atte. kon xanaa atte ci ñuy tukki la. ñiy tukki am nañ seen atte. man de damaa déggoon rek ñu ne ku dog benn fan tey ko. di nga ñaari weer ci koor gi. lii kay moo tax may laaj rek. ñoom dañoo jafeel. Samba jafe lañ tudd. kon kay xanaa ku neex nga leel bañ a woor. déer du ko mu neex. léeg am ñu am. ñu ko sañ am ñu ko sañu waaye affaire bi lii la déglu rek good guy good good guy bad guy ah sama baay lu bëgg a wax foofu ñii dañoo bëgg jafeel méttil ah! bu ko defee nag ñu daan dem xool question yi tuuti ndax dafa am ñuy laajte Baye Ahmed kii ne li muy laaj ñenn lu tax nga ne fóonante ci koor yàqul koor ji nga sa euh, nit ki ak jabaram ñuy fóonante nii rek dafa neex yàlla ba ay juróom-ñaar fukki junne malaaka lay bind den leen leen den leen leen kii den leen leen euh, bindal tiyaaba da leen leen like am na koy laajaat tamit nee ki nga xamante ni dafa takk jabar tukki jabar ji jël ëmb ci ginnaawam maanaam daal keneen ëmbal ko ku dul jëkkëram ndax sëy bi day tas wala sëy ba tasul de don gi dina dond wala du dond dana donn ka yaayam kon nag man faaw ma poser question xanaa kon doom jooju xaraamul xam nga loolu tax ma ne bul poser question ah lu tax du ma question tamit parce lii nga wax bu doon ay borom xam-xam am édition euh, ñoo fi toog dañ lay génne saal ba. lu tax may génne saal bi. da tuddee ji kooku mu ëmb da ko tuddee doomu aram te du doomu aram. moo tax may laaj ba xam doom ji doomu njaalo la am déet. mais doom ji du doomu njaalo. ah loolu rek laa bëggoon a xam kon ñu continuer. xam nga lii mooy wane ni mooy Sénégal dañoo mën a seetaan. waaye léegi xanaa décret téeméeri yar yi dañ koo dindi te man yëguma ko bokk. moo ma jaaxal. waaye déedéet defal ndànk nag. waaw. xam nga li nga wax loo ci xam benn am naa ci junni te wane ma ko. dama bëgg nga wax di. non bàyyi ma ma wax wala ma jóg dem. déet bàyyi Ahmed pourtant bàyyi naa la nga wax de. dama nag ma bàyyi ma wax wala ma jóg dem tànn ci benn. tànn naa nga wax waa waxal. Fra ma ñëw bëgg a nga naan maa naa nga man. waaw ba léegi baax na ñu continuer ci laaj yi. <laughs> kii na ne li muy laaj lenn la dafa mës dégg nga wax ne takk ko ci loolu bëgg xaalis rek la. mais maye jàkk maye euh, sëy ci jàkk sax dafa araam jàkk pour jaamu yàlla rek ah bon dafa waaw parce que yàlla moo ne wa anna masaajida lillaahi falaa tad'u ma'a allaahi ahadan maanaam jàkka yàlla la bu fa tudd keneen kon bu fa nekkee ne Faat Diop mooy say euh, manjaay loolu waru faa waaw Baye Ahmed ana sariya tamit mais pourtant ci sariya waaw mën ngaa ëmbal jabari jàmbur waaw bés ba jot nga ñew jëkkëram ubbi le buntu bi nga tudd sa doom bokay jël yóbbu nga jël yóbbu muni ya Cheikhul Ibrahima Baba Lamine jassi bay Ahmed waxat ko ñu dégg duma waxat waxaat mu ngi ci arrestement bi di nga ko waxal nak ndax te dañu bëgg a jariñu ah, xam naa loolu mais loolu boo ko may bàyyi ma wax wa léegi waxal ñu dégg yow rek lañuy ñuy déglu bay Ahmed man nit ñi buñu xamé né bu dé xalé yi xam nañ né man nañu sey mariage TikTok ak seeni portable man kon man Euh, euh, jottali ma leen koy jottali yàlla moo ciy jëflante ak man direct laa ila yoo wadde nga de hasbunallahu wa ni'mal wakiil mais mariage TikTok nan la war a moo ma jaaxal man sax mariage TikTok laa comprendre lul dara dem est-ce que doo jóg bi jeex na de asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu xam mariage ci TikTok sax na ma ko wax man de lii laa wax mbaa ngi di loolu ngeen wax. Ah, man ñun lii nañu mën a wax Ndoye Ndiaye. <laughs> bu ko defee suñu mam mën naa def ñaan. amiin. ah am na lu yokk ci man te gisuma ko de. Laliya. ah sama gaay lu bees lu neex ñëw na meew mu bëri fen ñeent ba dee mujjee juddu njëkk a baax meewu Laliya laa lay tegal de ba tax na ko doon mer na nga rey mbégte kër gi dikk na am na 500 grammes pour toute la famille am 25 grammes neex yóbbu fu nekk mën a tuddee naa ko neex a gàddu ndaxte moom moo gën sa wayal neex si ki laax nag waxaale wu ma ko ak ya ca topp bii meew daal moo wóoru disponible na ci bépp marché te noonu la bare ci boutique yépp demal ci boutique bu a jege nga ne jàllo am jaama de Laliya laa apporté moom laa choisir ndaxte fépp fu ma gis Laliya na ko jàkk mën naa rob pipi mu topp Messi te li ci gën a neex nag Laliya yemul foofu ndaxte dafay joxe ay xéwal yu xéwale ay sukkaru koor yu duun ay enveloppe yu diis gann gann gan gann pour nga bokk yi nag lu yomb la da ngay abonné ci paasu Kossy bi ndaxte yii xeetu loolu yu am maanaa ma gis ay ko ko tardé lii kay xanaa mooy yàlla jox la xéewal nga taxaw naan ko ma bañ ma bañ ma bañ kon nag Laliya mi ngi noonu foo leen nekk mu fekk leen fa man tamit fu ma taxaw dinaa ko présenté ah lii laa wax kon nag rendez-vous sur la page ak ay teraanga yu ama am doole wala bu doyul ñu xaar suñu commerciaux yi ci seen marché yi tout le mois de ramadan ñu teral leen ay loo yu am maanaam man de lii laa wax ak meewu laliya bu kose di ren moo téye koor gi en mai te ko ndogu te ndogoo meewu laliya sa koor gi dana ko vaar ak meewu laliya bu kose di mbégte rek la dundee weer wi ak laliya mi ngi leen ñaanal kooru jàmm